ndaanaan bi delsiwaat na mbokk yi promoteur amateur bi delsiwaat na jëy production ñëwaat na ànd ak ñun ci weer wi nga xamante ne ci la ñu am suñu indépendance bis bi sa njëkk maanaam le premier avril 2018 mbokk yi ci stadium Mar Diop jëy production ñëw boole ñaari ndaanaan dugg lamsaar jële fa nekk réel ak ki nga xamante moom mooy Nandi Fall bàyyi ko Grand Yoff mbooloo ñaari xale yooyu mbokk yi doon ñoo xamante kenn dootu leen présenté ndax wane nañ seen bopp ci wàllu làmb ci bis boobu ba drapeau maire ba nga xamante moom mooy maire bu commune bu des maires du Sénégal moom la ñu fas yéene sargal doomu Pikine bi la ñuy sargal ci bis boobu mbokk yi jëy production na yamuma ci combat boobu de Ahmed Dem numéro 2 bàyyi ko caare Cap Vert mooy daje ak bébé Garga bàyyi ko dóor dóoraat Jackson écurie Géejawaay mbooloo moo fay daje ak Rawane Burok énergie Raskas moo fay daje ak Boy Pire waalo waalo bi mbokk yi ci bis boobu tournoi des dina ci am deuxième journée ndax xam ngeen ni Bathie Seras numéro 2 bu écurie Bathie Seras moo ci war a daje ak Boy Bargny écurie Boy Niang Mbañi Kayre doomu Boy Kayre préliminaire ya dana bokk ci jamono de bu écurie Bawal dina ci daje ak Isatine bu écurie Thiaroye-sur-Mer Mor Kankang bu Cheikh Mbaba dina ci daje ak Zoro bu écurie Yoff mbokk yi Guy gi écurie Bada Dione lay bàyyi di ci jàkkaarloo ak Bébé Balla bu Pape Diop mbokk yi Ramdan numéro 2 bu écurie Bawal dina ci jàkkaarloo ak Téméra bu écurie Walfadjri mbokk yi loolu jëy production moo ñu ko indil ne daf ñuy fas ñu teel a jël waaye ci bis ba commanda cuun misère lamb ji mbokk ci bis boobu jéy production da def ciy fàttaliku xaritam soppeem seen nit ki nga xamante ni moom moo leen bëggoon xare àjjana muy Bas Njaay ñu koy rendre hommage ci bis boobu nga xam mooy bisu premier avril mbokk ci stadium Iba Mar Diop lay xewee jéy production ànd ak Iwil Jador ak la 2STV fas yéene béggalanteeg yéen jéy rek ci lamb ah ëpp na